dafa am suma suma benn xarit kilifa bu mag la woon ci man boobu ba léegi nag may waaj pour dem seeti ko ba yàlla def mu génn àdduna kulli nafsin saayixatul mawti bakkat mus dund rek dina mus dee nit bu génnee àddina dañuy xool testament am ba pare taalaaji lu ëpp ci alalam daf ma ko mayoon man mii ak samay doom testament waaw mboolem alal ji ne ci kër gi yëpp ak li nekk dëkk ba yëpp moom ak njabootam la ko may ta fasam même ma gis bugu ñu mirage yow nak nek fi di làkk say français nan wi wi wek si si ba sa alalu mag je nax say war na ñaari doomi la am marem ben doom bu gor la am na gëm yalla ah yéen ni mom dara jaru ko fi yaay sey góor legi nga xamanteni ni ñi xolé ba naaj bi tang nelaw ba ker gi sedd tek si nak jaay lu amul yaay sey mom merci rek yeen ñu ngi fexeel koo xam ëpp pexé seeni baay yow imaam yow laa wax damaa gént. Mhm. sama baay yab na ma ca àllaaxi nekk ci ab àll yor ay valise di tëj di tijj. tonton yaat ma taxawaayam ci kaw suuf. ak yegg bu mu yegg ci suñu borom. defe naa ni day du ne ci àdduna bi di jariñ nit ñi ba pare. du régler ginnaaw. te maa xàmmee wut wala nag may fàtte fàtte yàpp ma biiram kottu jóg yàpp yow xanaa tëjuwul si biir yàpp ma biiram kottu jóg lépp loo mosoon Merci de suivre les programmes de Game Vision.